Aliou ñu ngi leen nuyu. maa ngi fay. tey ngeen joué match boo xamante ne bu méttee métti seen diggante ak xale yu jàmbaar. tey lan ngay yëg. kontaan rek ah. Euh, am defuñ daal lu kontaan quoi. parce que joué final coupe du Sénégal lépp li nga xamante ne peuple Casamance dafa ko doon xaar. tey yàlla euh, mee ñu loolu noonu ñun ñu fekkee ko parce que bu ñu ko daan ay jamono dañu doon toog di séance suñu grand yi nekk Casa Sport. tey ñun ñoo ñëw équipe bi ñun ñoo gagné coupe boobu noonu amul dara lu ñu kontaan rek waaw. ngeen gëj dem final euh, presque depuis en 2015 la Casa gëj ñëw final ba tey yàlla dogal 2021 bi tey Casa daal koy jël te yéen xale yéen a ko jël tey tey maanaam loolu tey ban yëg ngeen am ci loolu. lu ñu am mooy gëm gëm suñu bopp rek gëmoon suñu bopp rek. xamoon nañu ni suñu final bi ni du yomb mais suñu dëggalee suñu bopp rek dañ ciy gën facilement quoi te looloo am quoi waaw te équipe bi équipe jeune la soo xoolee depuis euh, daaw la ñu commencé construire équipe bi ak Covid bi nii gars yi arrêté championnat bi ren ñu ñëw ñu gën a imposé wu tegoon suñu objectif nii ren ren oh, nu mu métti métti métti dañuy jël benn coupe quoi te xam nga tey yàlla jàppale nañu ba ñu jël coupe boobu noonu. mais sant yàlla quoi. jërëjëf man Lamine Diadio. Lamine Diadio waaw. tey ci match seen diggante li nga xamante ne ak euh, yéen ak mu nekk match tey bu compliqué match bu méttee métti yàlla def ngeen daal ciy génn tey ba looy yëg tey. waaw tey lu may yëg kontaante bu mag parce que jàmbaar dafa ne équipe boo xam ne équipe buy football ñu leen ñëw ñu joué gars yi si tactique waaw affaire yi du joué kese. l' essentiel ku gagné moo gën a am importance mais tey journée boo xam ne la dama bég trop parce que kaasa den géej a gagné coupe waaw te ñun ñu nekk génération boo xam ne ñu ñoo ñu gagné la équipe bi loolu fierté bu mag la quoi. yow sa bopp waaw waaw parce que saison bi yëpp dama ñefeet équipe bi parce que si si sama benn interview dama wax gars yi ne kaasa den géej a gagné coupe man dama ñëw pour gagné gars yi te def naa ko. mais kaasa géej au final waaw loolu dëgg la loolu fekk man xale soo gisee ñu ñëw fii di ñefe kaasa dañ gëj a gañe coupe moo tax ñu ñëw ñu ñefe waaw boo déggee jàmbaar mooy ñoom ay ay kii lañu ay académicien lañu dañuy bëgg duñu bëgg a sandi dañuy bëgg a jouer proprement donc la consigne c'était de le prendre très haut ñu jël leen si kaw bu ñu leen jëlee si kaw dañ leen pousser à des erreurs ñu pousser leen à ñu pousser leen à que ñu dégager ballon parce que ñoom tàmmuñu loolu ñoom dañu tàmm génne ballon proprement donc bu ñu dégagé dañuy dañuy dañuy dañ leen di dugal si beneen contexte boo xam ne ñoo xamuñu ko donc la consigne ñu jël leen si kaw ñu obligé leen à ce ay erreur ñu protéger si erreur boobu ñu dugal boo xoolee bii sa noonu la defee dafa bëggoon dafa bëggoon téye bi génne ko proprement au de dégager waa ji nangu ko ñu joué ñu dugal donc c' était ça la consigne quoi voilà